waaye man dafa am benn laaye bi ma xaw a jaaxal man mën nañ ci tëje mais euh, fu suñ borom di wax ne wa qaala rasulu ya rabbi inna qawmi ittaxadu hada al mahjura ndax tollu ñu jamono ju tey ah kay asalaamaaleykum wala li nga wax noonu wa qaala rasul inna qawmi ittaxadu hada al qurana mahjura waaw ay façon <laughs> ak façon yu bari fa la ñu tollu de dañ doon alquran bu ne ba axiru zaman dañ ko yëkkati borom xam-xam yi wuute na lañ ko yëkkatee ndax mbind ma la ñoo walla wala boog ci dënnee lañ koy yëkkati wala jafee ga la ñuy yëkkati gàddaay alquran googu toll na ñii yàlla dogal na jàng nañu ko waaye gàddaay nañu ko ci jëf duñu ko jëfee pourtant mokkal na rek ngay dégg waaye boo xëyee feeñul ci bu jëfee feeñul ci loolu benn xeet la ci xeeti gàddaay yi ñii xëy na ñoom seen suba ba ngoon seen programme boole ñu ci xëy ubbi teere borom bi subhanahu wa taala donte benn xisbu la sax wala rubo la ñu jaar ci ci teere borom bi boole ñu ñooñu tam benn xeeti gàddaay la beneen xeeti gàddaay bi ñuy wax nag mu ngoog ga ko xam ne diplôme bu dul diplôme jinne am daanaka yor na ko waaye boo ko nattoon fatiha bu wér bu amul yàq sax mënu la koy jox gàddaay bi gën a rëy nag mu ngi noonu kon dal bu ñu xoolee tey ndeyjoor càmmoñ sa kanam sa gannaaw da nga gis ni ñu wane gannaaw teere borom bi subhanahu wa taala bi daal dund bi ñuy dund dund bu xajam wa man arada an zikri du leen cause bi mooy gàdday gu ñu gàdday borom bi subhanahu wa taala dund bu jafeñ bi dund bu jafeñ nag bu ñu koy wax ci fànn bu bëri jàmbat yu bëri waaw crise de bi ñu am jikko yàqu yi wa mooy li lépp ndax nit ngay tabax wala ngay jéem tabax lu mu mën di doon boo tabaxul nit jéem a tabax loo tabax ñu ñu daaneel kon tabax nit moo jiitu te alxuraan mooy kii tabax nit koo xam ne pusa sax du ko damm ndax mu ngi xalaat ëllëg ne dana rendre compte kanam ak digganteem ak boroomam waaw koo xamante ne nag ah dafa gàddaay alxuraan kooku day tëñëx tëñëx yi dem rek alxuraan mooy tos bi lay niital foo bëgg a teg sa tànk mu ne foofu baax na tegal foo xam ne pax dafa ne wala luy gaañe mu ne moytul ci misaal masalan moo lay niital ba li nga xam ne sa njëriñ aduna la sa njëriñ àllaaxira nga xam foo cay teg sa tànk sa loru àdduna sa loru àllaaxira moo lay niital ba nga xam itam encore nan ngay def ba évité ko kon daal alquran bu ñu ko loolu doon misaalal moo di eh, garab remède bi nga xam ne mooy faj nit ñi feebar ci wàllu jikko wan ko gannaaw nag ku la ko gën a wan gannaaw moo la gën a feebar ku la ku ko gën a ñeme xëy na du ñu wax wér 100 pour cent am na waaye moo la gën a jege wér waaw kon daal sëñ Gomis loolu la ñuy wax ci gàddaayu alquran anam yi bëri na lool ak kenn ku nekk nag nanga ko xeeti gàddaay ba nga koy gàddaayee wa jazakumullahu xayra barakallahu fiiku ya oustaz wax dëgg yàlla kontaan nañu lool si waxtaan bi kon mbokk yi euh, war nañoo bàyyi xel bu baax li nga xam ne mooy alquran karim téere bi nga xam ne moom la suñu borom joxañ ne zalika alkitaabu la ba fii hudan lil muttaqin téere ngi noonu de amul benn sikki sàkk bu si nekk te njub la ñeel ñi nga xam te ne ñoo ragal suñu borom subhanahu wa taala kon mbokk yi gàddaay alquran dëddu alquran wan gannaaw alquran danger bu rëy rëy rëy rëy rëy da si nekk fii ci àdduna ak alaaxira ndax euh, suratu boobu suñu borom laaya boobu di wax suñu borom di wax ne wa man arada an zikri fa inna lahu maachatan danka wa naxshuruhu yawma alqiyamati ama qaala rabbi lima xashartani ama wa qad kuntu basira qaala kadalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadalika yowma tunsa suñ borom mu ngi fay wax ne ngir ñu bàyyi xel alquran bu baax ñu xam ne danger dafa nekk ci gàddaay guñ koy gàddaay wala dagg guñ koy dagg mooy suñu borom dafa ne képp koo xam ne dëddu na alquran moo xam jëfe ga la moo xam jàng ga la moo xam topp ko ba maanaam dund gu ñagas ñeel na la sa dund fii ci àdduna kon tey gis nañu jafe-jafe tey yu ñuy dund ci àdduna bis bu set ñu ngi wër solution te alxuraan mu ngi ne mu ngi amul solution yi mu ngi sa fees dell waaye ñu see jël waaye suñu borom nee ne na bisu yowmal qiyaam ñi nga xam ne dagg nañ alxuraan war nañ alxuraan gannaaw maanaam dañ leen di dekkil ñu gumba dañ daan gis bi waaye bu ko defee ñuy laaj suñu borom naan ko suñu borom lan moo tax ñu doon gis ci àdduna tey gisuñu mu ne da leen tontu suñu borom da leen tontu ne suñu sama laay dikkaloon na leen ngeen wan ko gannaaw tey kon tey noonu lañ leen di wanee gannaaw kon tey mu danger bu rëy rëy rëy mu ngi ci kon mbokk yi jot na ñu delluwaat ci alquran gëstu alquran ah di ko jàng di ko jàngal suñuy njaboot ngeen xam ne daara solo sam solom si àdduna balaa ñu koo xam rek ñu dana suñu borom solos al euh, alquran ci suñu dund ci di ko jëfe balaa ñu koo xam rek ñu dee ba dayante ak suñu borom kon loolu lu mat a bàyyi xel la kon mbokk tey lii lañ leen indiloon tey ci bépp Actu si euh, découverte 100 pour cent daare alquran Mouhamadou Lamine Seck sama jeune man bi na xam ne ñun tam dañoo bokk ci xayrukum bi de ndax suma sëriñ bi nee ne Cheikh Ibrahima Khalil Lo yàlla na ko yàlla euh, yàlla na yàlla guddal fanam danaan wax ne xayrukum bi yemul rek ci ki toog ci ci ci xalqa bi di jàngale rek waaye mu nga law na ci ka nga xam te ne tey mu ngi nekk di jàpp ci liggéeyu daara ji moo xam dafay togg moo xam dafay fóot moo xam ki xayrukum bi tamit dana law ba ci nga xam ne yëkkati na alalam tey di ko def ci daara ngir tey sëriñ daara bi toogaayam gën a mën a baax ah kon nag ñun ñii tamit ñëw di seet si sëriñ daara kon dafa mel ni kon loolu ju dañu si laafaale ah mel na mel na ne bokk nañ ci de waaw ah, dafa mel ni tamit am yoon ngeen benn yéene benn yéene boo xam ne tey élargir daara ji loolu moom mënumaa dem te du ma ko souligner élargir daara ji ba tax na am na benn kër bu dend ci yéen ngeen ngeen bëgg ko ngeen jënd boole ko ci. waaw loolu si si weewu weewu weewu bëy laa ko fore ni comme ni ko ni ko ni ko wolof yi di waxee <laughs> waaw. Euh, alhamdulilah rabbil alamin xëy na tëjoon nañu si kàddu ba pare waaye loolu nga wax daanaka liñ naan am na loo xam ne bët bu jàkkaarloog moom rek soxlawul wax dañ naan wax ñaar la lisaanul xaal ak lisaanul maqaal lisaanul xaal. da nga ne jàkk rek xam boo xoolee sa bopp ndeyjoor càmmoñ da xam ne bërëb bi xat na xat na lool ah wax dëgg yàlla boo xoolee surface bi nga am ak nombre bi nga fi bëgg bëgg dajale méngoowul kon fépp foo xam ne mën nga fa am espace waaye ba ca dàq mooy fu sa soog yow foo xam ne boo ko dolli woon ci bërëb bi nga nekk duñ wax ne dana doy waaye dana tane loola kon ci yittey daara ji la ah, yàlla dogal na fi sa soog ñun xëy na ñoo ngi sabablu di ñaan waaye itam di ñaan borom bi subhaanahu wa ta'aala cek mbaaxam moom mi nga xam ne duñu ko disken moom mi nga xam moom moom suufam mooy joxe mooy xañe téere bi moo ko moom ñun dañuy sabablu rek ah alhamdulilah daaraam jaa ngi nii daal xat na bërëb bi mu den dal dañu koy wecc yàlla sa daaraangoog ba sa suufangoog ah alhamdulilah rabbil alamin ñoo ngi tàllal loxo yi nan ngay def xëy na yàlla nag ñu lal ubbil ñuy bunt ba loolu naal boobu ñu am yàlla na ma taala yàggale ñu ko. incha allah kon mbokk yi loolu lañ leen indiloon tey tey suñu mooy nekk suñu premier numéro euh, fii ci daara euh, Mouhamadou Marème Touré ci fii si Parcelles Assainies kon lii lañ leen indiloon tey bépp ak ci lii la leen indiloon euh, ci découverte 100 pour cent daaray alquran kon nag alquran la ñu ubbee woon ñu ngi ko fas yéenee tëjee alquran incha allah mbokk mi ñëwal tëjul ci ci alquran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما فرطنا في الكتاب من شيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا صدق الله العظيم